aywa bon du yàgg day yàgg nee naa yàgg du yàgg de waxoon naa leen ki taxawal combat bi daf ñoo yàgg ki taxawal combat bi Ibou Khalil respecté lii du combat moo waaw eh eh waay kii moo ñu yëpp waay yow Papa Bari bu fi wax de waay kii lu muy wax kii boo ko waxee waxal lan lay wax